te di nga sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sangu sang yi ñi nga xam ne moom la yoon daaw ñu ngi leen daaw ñu teg bi semaine di màggal bés bu tedd bi nga xam ne bés bu suñu kilifa kilifa àddina bi yëpp seen Tuuba te yàlla mayaat ñu ñëwaat tey ci bés bi fekkaat la fi dina ziar kon ñu sant yàlla bu baax jërë nga bu baax di leen dina ziar ànd ak délégation nag bu mag. jóge Dakar ñëw ci bésu màgg bi parce que gis ni ma ñëwee xam ne fonk naa bés bi waaye loo fonk bés bi rek jigéen ñi ma ko war a fonk ndax bis ma jógee di ñëw sëriñ bi responsable nekk jigéen da nga dañuy ànd ma ñëw ziar si. ñu ay jigéen la ñu takku la ñu ñoo xam ne dañoo gëm nekk ay jullit ñu nekk ay murit ñu waaye ñu xam ne seen tubaab. kenn bësam bii mu ngi ko tardé ñu takk bàyyi sa quitté ñëw ko ziar sëriñ bi seet si la ziar la sakku si ñaan am na mbégte bu rëy sëriñ bi sox sakkaat la fi ren di sakku ñaan ci liggéey bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall moom la sant ci jëfal Sénégal liggéey leen nekk seen disposition jàppale ko ci li nga xam ne mooy liggéey ci askan bi ba ku ci nekk gis sa bopp ci biir ci muy liggéey yaakaar naa ne nag. bu ñu nee nag épanouissement nit ci jullit yi nga xam ne ni Sénégal ñu ko dëkkee bu ñu ñëwee Touba wàcc nañu di fàttali suñu ak yow sa taxawaay ci askan bi sa taxawaay fii ci Touba ñu naw la loolu nag yàgg laa gis yàgg laa bëgg yàgg laa sopp ci sa doxalin ak sa taxawaay ak boole bi nga boole ñëpp ñu am bëgg bu rëy nag tey ñëw fii di ziar xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla fi yàgg te wër ñëw sàkku ci moom ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéewal yokk jàmm Sénégal son excellence le président Macky Sall yàlla def ko deuxième mandat au premier tour pour que Sénégal jëm kanam mi duñu seen bopp boobu ci bopp seen ñaan sëriñ bi mi nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ci turu Sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou mi nga xam ne moo fi Sëriñ Touba tey jii nee na mi ngi nuyu mboolem délégation bi nga àndal na te nee na bu ñu ci tuddee soxna Astu ibnu bintu Cheikh Mouhamadou Mourtada nee na dana yóbbaale mboolem ñi ci des ñëpp nee na kon ñi ngi lay dalal jàmm bu baax fii ci Touba nee na nga ñëw fi nag ci turu président de la république mu lay yóbbantewaat ci moom am nuyoo nee na dina dalal jàmm di dalal jàmm mboolem ñi nga àndal ñépp ndax kat nee xam nañ li nga doon ci dëkk bi lu jëkk ndor tàkk gii def nga tàkk ko di ministre ndax kat ki jiitu woon léegi di lim lim na ko waaye nag bu loolu lépp amutoon deme gi nga deme ak soxna maam Faati mii di mag doyoon na sëkk nee li nga demee ak moom nee na yóbbaale na mboolem liñ bëggoon a wax lépp ndax kat askanu maam Maharam bi njabootu Sëriñ Tuubaa nee boo ci xasee am kenn nekkee fan bu ñu nekkee fañ war a nekk boo xasee téye kenn ci askan rek mel na ne téye nga ñëpp kon nag yëpp nañ taxawaay bi nga am ci moom nee na loolu doyoon na sëkk yóbbaale liñ bëgg a wax lépp nee na ginnaaw bu loolu jàllee itam bi ñu la tegee ci barab bii ba nëgëni yëpp nañ ni nga fonke dëkk bi. ndax xam li nga fi doon waaye cër bii ñu la jox itam nag cër bi ñu leen jox xam nañ ko bu baax a baax a baax te ñun kat Serigne Touba képp lañ am dëkk bi rek lañ am képp ku jàpp dëkk bi daal ñu jàpp la yëpp nañ nag ne li nga ci doon jàpp nga ko ndax lu fi xew kenn du la fi dégg bi nga fi toogee ba léegi. muy yaari màggal yi weesu bu ci nekk booy ñëw délégation bi ngay àndal rek dana xam ne ne fonk nga fi nga jëm kon nag loolu yëg nañ ko bu baax lii may wax nag ci turu Serigne Mountakha laa koy waxe di sant bu baax njaboot gi itam yéene yi nga xam ne am nga ko ci ñoom yëg nañ ko bu baax ak jàppale gi nga xam ne yaa ngi leen koy jàppale loolu lépp nag loo ci def nag rek sëriñ bi nga ko defal kon ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm di la ñaanal ci yàlla ci barkeb sëriñ Touba yaakaar ji président am ci yow ba tax mu dénk la ko yàlla nga ko yóbbu fu kawe sa jot te nee na nag rafet nañ ci jot ndax gis nañ li nga xam ne kilifa bu ko def man ngaa am ndam ci sa mission mooy mën a boole ñëpp te gis nañ loolu ci yow yàlla na la ci yàlla gën a dimbale nee na nag mbooleem ñi nga àndal ñëpp sant na leen bu baax waaye nag sëriñ bi nee na ñi doon tàccu léegi nee na mi ngi leen di ñaan na loolu bu mu leen dalati ndax kër sëñ Touba waxuma sax kër sëñ Touba waaye Touba ci boppam miinu ñu ay tàccu loolu ndajem politique moo koy def la sunu mag ñu baax di di Serigne Mourou Boussa Diagne waxoon ne fii du congrès du meeting rawatina nag barab bii ñu toog ndax fii ñu toog ci barab yi gën a fonk ci Touba jàkkaarloo nag ak sëñ Touba kon ku ci am mbégte na nga ko feeñale faneen wala ci beneen façon bu bokkut ak bii. waaye loolu nag suñu teggin mayuñu ko fii ci Touba ndax kilifa gii ngeen àndal moo tax waaye keneen ku ko defaatul moom dañ koy génn kër gi ndax loolu mosu fee am moo tax kon loolu na ngeen ko xam ku fi dikkati na nga ko àndaale xam ne fii ñu toog moom kër sëñ Touba la bañ na ko ba doomi sëñ Touba yi kun musta fonk lool duñ la fi dalal duñ la fi gàttaloo moom mii nag xam nañ ne moom du ko def de ndax xam na fi mu bokk moo tax mu yóbbaale leen waaye ku fi ñëwati ëllëg nag na ko bàyyi xel bu baax jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah nañ nangu ñaan na ñëpp maa sa nangu